Bienvenue sur Salam Vision. mbokki xarit ñu bu baax ci ànd bi ak ñun ci rajo Dunia Vision RDV alhamdulilah c'est reparti pour votre matinale bonne heure direction comme chaque matin vous êtes euh, dans la quatrième incursion de la semaine bienvenue dans votre principale session matinale on est jeudi 8 euh, décembre 2022 euh, ànd ko ak la rubrique d'abord référence on a le choix de cette personnalité un grand homme Sidi Lamine Niass tey moom la ñuy bëgg rendre hommage ni ki dimanche passé mu nekkoon anniversaire du DCM 4 ans donc tey mooy doon suñu choix ci référence l'élément et puis on tout à l'heure daama comme ni ko waxee rek tey moom nag mu juddu quinze août nekk bokku ci li nga xamante ni moo di famille Niassène dëkk foofu noonu ca Kaolack kooku nag mooy Sidi Lamine Niass nekk nitu l'islam wante aussi li nga xamante ni moo di nitu média parce que ñu bari euh, média bi lañ ko xamee moom Sidi Lamine Niass moom nag euh, mu nekk nit koo xamante ni professeur la woon avant muy dugg ci li nga xamante ni mm-hmm. moo di média bi mm-hmm. ginnaaw boobu bi mu nekkee professeur di jàngale li nga xamante ni moo di arab parce que dafa nekkoon koo xamante ni dafa fonkoon diine l'islam hmm. ci noonu rek ci la demee woon Égypte gën a yokk li nga xamante ni moo di xam-xamam moom Sidi Lamine bi mu demee Égypte ba ñëw ci la fondé li nga xamante ni moo di Walfadjri te Walfadjri sax booy xool tur bi dafa méngoog li nga xamante ni moo di turu alxuraan ci foofu rek la jëlee li nga xamante ni moo di turu fajiri bi bi muy créé Walfadjri nekkul woon euh, télé moo taxoon mu créé ko mais journal la woon journal bi nag mu ko doon génnee ci semaine bi trois fois la doon génn par semaine mu dem ba am doole di génn euh, chaque jours dans la semaine. ci noonu rek daam euh, Sidi Lamine Niass fexe ba créer ci li nga xamante ni moo di rajo bi mu créer rajo bi moo jur li nga xamante ni moo di télé bi euh, di Walfu TV. Hmm. mu doon groupe groupe je vous dis groupe média waaw mu nekk groupe Walfadjiri hmm. ci noonu rek moom dafa yàgg nekk ci li nga xamante ni moo di politique. Hmm. parce que boo xoolee nekkoon xaritu. xadafi mm-hmm. xaritam la woon parce que daf ko jege woon loolu ndax li mu doon dem fi nga xamante ni moo di Égypte noonu la ñu nekkee woon ay xarit bi mu fi nekkee aussi ci nguuru Léopold Sédar Senghor tëjoon na ko parce que euh, Léopold Sédar Senghor ñëpp xam nañ ni. Mm-hmm. benn pion la woon rek bu fi français yi tegoon di ko utiliser. Mm-hmm. ci noonu rek la ko jàppee tëj ko prison comme ni mu defoon nag ay moroomam. Mm-hmm. ñu bari tëj na leen. noonu la ko jàppee woon tëj ko prison wante aussi nekkoon conseiller ki nga xamante ni moo di président Abdou Diouf nekkoon li nga xamante ni moo di conseiller Dame. wante euh, boo gisee à chaque fois dañ doon wax Sidi Lamine Niass day xeex pouvoir. Ah. parce que ku fi toog rek dina xuloo yow wala du am ak yow relation. dina xuloo ak wax dëgg. waaw da noonu loolu lañ koy jàppee dañoo mm. xuloog yow mm. parce que lépp lum doon wax rek intérêt Sénégal moo taxoon mu koy def mais mm. nit ñi xamee wuñ ko woon noonu Sénégal nag balaa ñu lay xam rek il faut nga wan leen ginnaaw donc nekk amul woon relation ak ki nga xamante ni moo di président Abdoulaye Wade mais demoon nañ ba ñu sekk waxtaan président recevoir ko ci pale bi ñu toog ko waxtaan bokk na aussi ci ñi nga xamante ni ñoo jàppale Macky Sall ba mu toog fi mais bi fi Macky Sall toogee sax après dafa ni bi yi nga xamante ne Macky Sall da koy def neexu ko donc moom nag à chaque fois euh, slogan bi doon gën a utiliser sax mooy chaque jour nañu gëm suñu bopp euh, na Sénégal kese nekk loo xamante ni euh, moom la ñu war a gën a tëyee parce que Sénégal fii lañ dëkk loolu rek la doon wax di utiliser ay mots yoo xamante ni day gën a motiver li nga xamante ni moo di réewam Sénégal wante aussi ak ndaw ñi loolu rek moo taxoon muy def li muy def chaque jour nag ñu koy gis muy génn di cas mais lépp lu doon kaas rek intérêt réewam moo taxoon mu koy kaas comme li ma la waxoon tout à balaa ñuy xam nit nag mu génn àdduna donc lépp loo xamante ne def na ko fi ba léegi ñoo ngi gis ñu koy tudd parce que loolu aussi moom moo ko liggéey comme ni ma lay wax rek mm. à chaque fois icône la monument la donc dafay baax ñu leen di fàttali di ñaan rek yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana euh, teg loxo ay doomam macha allah amin euh, yaa rabbi euh, ñu ci bu baax a baax aussi doom ji nga xam ne mooy taaw mu bàyyi ko fi mm-hmm. muy njiital euh, groupe euh, Walfadjri euh, juste rek fàttali ne à l'instar de cette grande personalité aussi daanaka dañoo yem mhm. nañ daan doxe waaye xëy na Sidy Lamine bi ñu ko daan dégg muy àddu ay kàddu jëm ci wàllum politique stabilité dëkk bi mhm. bokk na ci ki daan xeex chômage di dooleel ndawi réew mi muy mhm. El Hadji Ibrahima Diagne benn baas moom it ñaan yàlla mu yërëm ko te xare ko aljana 9h35 minutes bala ñu dem léegi culture yaatal waxtaan suñu ñaareelu gan mi ngi toog muy euh, Samir Seck jërëjëf Samir yaa baax waay communicant un très grand animateur et chroniqueur tey mooy doon suñu ñaareelu gan jeexal fi 10 heures incha allah Samir salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. kontaan bu baax ci am na tey ci suba si sile. macha allah fii la pecc ñun bu baax a baax macha allah. ñu bàyyi la nga nuyoog kii spectateur waaw onze oh, billah bismillah inni wali yàlla jërëjëf borom Tuubaa Xaadimu Rasuul. Mm-hmm. jaraw la ak maam Cheikh Ibrahima Fall. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk internaute ak auditeur ak euh, téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy teewlu télé bi nga xam ne mooy RDV mm. plus particulièrement émission bu rëy bi nga xamante ne nee naa fi mu toll nii wax dëgg yàlla mm. day gunge askanu Sénégal suba teel gi bu ñu xëyee parce que ci information ci actualité ci culture ci lépp lu ci mën a doon mm. ñu ngi koy teewlu di ko suivre et puis ci ñun ñu gis sunu mbokkum taalibe sunu xarit sunu frère taxaw ci plateau di ko def. dañuy mel ni ñun ñoo fa kon ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñuy seetaan ñu ko waaye di nuyu itam mboolem ñu ñu bokkal plateau bi. Mm-hmm. ak équipe technique bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw les hommes de allah ñi nga xam ne kenn du leen gis fi baax ñoom mm. ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay bi ñu bëri xam ko à travers vos interventions dans les petits écrans mais gis nañ ne tu es un très grand communicant day feeñ ci booy wax nga maîtriser. Euh, bu baax a baax doxinu askan wi waaye aussi doxinu jamono. Mhm. Samir Seck yaa ngi teewlu boobaak léegi bala sax ñuy gën a yaatal euh, ci yow euh, waxtaan wi si subaak léegi Sénégal dafa toll foo xam ne daanaka naan yaramu mag la. Mhm. secteur yi foo laal day metti nii nga fekkee tey noonu la ñu dëkkee du lundi au vendredi. Mhm. ci fu nekk moo xam branche bi lié wàllum njàng branche bi lié wàllum pàcc ak yeneen ak yeneen. ñun ñëpp a ngi jooy ci ni état war a doxee doxewu ko. am na noo koy waxee ñu jàppale tëj noo gisee loolu. waaw daam xam nga fi mu ne di réew mi moom fi ne li li gars yi wax naan fi ni ne fépp féppay metti mm. maanaam foo dugg fu ne jàngoro la mm. te te te te jàpp naa ne lu waroon na mën a ñàkk la lu waroon na ñàkk la lu waroon na mën a ñàkk la mm. te lu war a ñàkk la itam ba tey parce que dama dama am sumu benn sama benn benn kàddu bu ma daan dégg ci sama mu koy wax mu ne jëm mag du jëm mag waaye dolli ko ay valeur la war a doon maanaam je vieillis pas mais je prends de de la valeur. maanaam nit bu demee ba jëm bay jëm ma maanaam xam-xam la war a fees. lan la sunu maam daan misaal foofu. waaw li mu fa doon misaal mooy fi mu ne dañ il faut nit ñi kenn ku ci ne li mu moom nanu ko ko jox maanaam bu fekkente ni jël nañ kenn ku ne li mu moom ñu jox ko ko. Mm-hmm. defe naa réew mi du am problème. dëgg la boo xoolee problème bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mooy làkk doom dóor doom bi nga wax sànq. waaw mm-hmm. seen ñëw firndeelaat ko. Mm-hmm. justice bi day bu ñëwee ba jóg taxaw jëmu def ñu xool tey ji Pape euh, Pape Alé Niang mm. xool ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon affaire bi li mu niru yëpp mooy li ñu war a def la ñu deful li ñu war a def maanaam li ñu naan rendre à César ce qui appartient à César mm-hmm. Sénégal dafa mel ni problème boobu du fi du mës a saafarawu ci Sénégal mm, yaakaar ko tant que amuñu Baye Fall bu toog ci boppu réew mi mm. loolu du mës a saafarawu di doxalee nan xam di doxalee nan te de jaaxanaay xam nga bu ñu nee Baye Fall c'est pas c'est pas c'est pas physique c'est pas caractère mais xol la. jikko la xam-xam la. Mm-hmm. yemale ñëpp daal. mais c'est normal. yàlla moo ñu bind yemale ñu. Mm-hmm. kenn ku ci nekk mu def kii mu xees mu def kii mu ñuul mu def kii mu gàtt mu def kii mu njool. Mm-hmm. mais segam yàlla mi ñu bind moo ñu yemale pourquoi ñun nit mënuñu yemalante suñu biir. da nga gis loolu la fi manqué ki ñu fi nekk defuñu noonu. non majeure partie defuñu ko. man je je parle je pèse très bien mes mots. d'accord vingt ans média. donte jàng naa ci. gëstu naa ci. xam naa ci mhm. donc mais depuis vingt ans li may gis bu ma nee ba am cinquante ans toog fi ma toog. Mhm. kon man trente ans ci ci ci lañ ma yar wala vingt ans ma gëstu sama gëstu bopp. Mhm. à l'âge de vingt deux ans ba fii ma toog kon li may gis depuis que bi may am vingt deux ans ba tey ma am cinquante ans. muy on n'a jamais eu de changement. c'est dommage. et dans quel pays on est. le Sénégal. qui devrait être. qui devrait être maanaam changement yaakaar nga ne war na mën a am euh, njoxtu ne aussi tamit ñu ngi jëm peut-être ci ay euh, jiixi jaaxa ci li ñu génn bërki dem moo njaay mm-hmm. muy coow loo xam ne créé woon na fi ay dégâts mosuñu gis Sénégal ci xaar kanam boobu ñu dem ba gis ci quatorze jeune yu ci dee mm-hmm. des dégâts yoo xam ne euh, à l'endroit du du ci ci moomeelu France mm-hmm. ba six milliards et quelques ñu fay ko ci ay bor waaye aussi ay accusation ba ñenn ñàkk seen i poste euh, gis nga yaa ngi wax léegi valeur c'est très important Samir mhm. nga yaakaar ne jotul jotaatul encore ñu euh, dem di concerté waat mag ñi fi des wala kilifa diine yi fi des xaw leen a impliqué tuuti ci doxalin réew mi muy politique daam da ngay revenir kon ci li maa waxoon léegi hmm. gis nga dañuy toog média yëpp boo toogee ñu ni on a perdu nos valeurs hmm. alors qu'on a pas perdu nos valeurs mais ñun ñoo abandonné suñuy valeurs parce que valeurs yi ñu ngi fi ba tey. mag ñi donte mag ñi fi ëppoon newatuñ fi mais bàyyi nañ fi ay ay ay yoo xam ne tey jii buñ ci toppee sukkandiku ci gëstu ko jàng ko wakkiirlu ci doyloo ko. Mhm. dañuy gis ay résultats. d'accord daam man du ma jël fenn exemple sama bopp laay jël exemple. Mhm. daam bu dee man fonde laay lekk walla cere meew xam lu ma ci jublu. dama bëgg a wér. bu ma xëyee laax laay ndekkee wala fonde. teg ci sama café Touba. am nga possibilité lekk leneen waaye yaa préféré lekk loolu. waaw léegi parce que xam nga mhm. xëy léegi tey jii li xew. Mhm. mu ñu baal ma mhm. jeunesse bi. da ngay xëy looy ndekkee hamburger shawarma wala pain nangam sangam bu mu dee jigéen ñi saafal la ceeb bi ba mu wow teg la ko. ñaari pat ñëw. cinq heures nga ci jaar fee jënd sa mburoog fataaya. troisième pat ñëw. guddi nga dem jëndiwaat hamburger wala shawarma. quatrième pat ñëw. toute la journée. defoo benn effort bu tax yow loolu lépp nga lekk mu mën a digérer wu. donc pat ak cholestérol moo dajaloo ci yow. fan ngay jëlee wér gu yaram dina jafe de. daan première pharmacie bi njëkk ubbi ci Sénégal Saint-Louis la ubbi. Hmm. ils ont fait un an sans pour autant vendre une seule médicament lañ jaay benn garab. ndax lan boobu nit ñaa ngi wér. parce que boobu nit ñi dugub la ñuy dundee. Hmm. ordre bi ñu dajee def li ñuy def am nekkoon koo xam ne c'était c'était un scientifique. Hmm. danañ ni fexe leen boobu lan la ñuy dundee. biñ ñëwaatee ñoom defaat seen recherche gis ni dëkk bi dugub la ñuy dundee biñ ko waxaatee dañuy fi dëkk bi ñu ngi dundee dugub du ngeen jaay garab. donc vous prenez la consommation locale. bien sûr. man sama dëkk laa am sama réew la am. Hmm. te daam tey jii dañuy gis fi ni li fi ëpp doole tey jii ci àdduna ñu koy wanteer wala ñu koy jaay wala ñu koy tiitaroo. Hmm. Afrique lay jógee. léegi on nous dit que ni fi dañu on perd nos valeurs. pourquoi hmm. on perd nos valeurs. on ne suit pas nos valeurs. on ne suit pas nos valeurs. bien mais les valeurs demeurent ici. plus particulièrement en Afrique. fii li fi am ci ay mag ñu baax li fi jaar ci ay borom xam-xam. adduna wërngal këpp ñu ngi waxtaanee Cheikh Anta Diop. adduna wërngal këpp ñu ngi waxtaanee euh, euh, Léopold Sédar Senghor. Serigne Touba. Mhm. Omar Foutiyou Tall. Mhm. mais ñooñu ñëpp fa lañ bokk. Sénégal. mooy Afrique en grosso sa ça revient à l'éducation comme quoi que ne euh, nit ñu baax ña ñu amoon ak les références. ba tey lañ fi bàyyi woon jógu fi. Mhm. ñun ñoo wàcc yoon yi ñu waroon a jaar. très bien man loolu laa gëm ba keroog may gis lu ko soppi. Amina tu es à côté de euh, toi un communicant Samir Seck une question d'actualité. Machallah. wax na ko am na solo mais xëy na man fi may rebondir eh, fenn rek lay doon en tant qu'un communican eh, ni nga ko waxee xëy na eh, réew mi bëri na ay problème mais tey jii nan nga gisee secteur boo xamante ni yëkkati nañ ko ci duwaanu Sénégal ñi ngi dox ñi ngi def ay doxum ñaxtu mais boobu ba léegi dafa mel ni dañ leen a faalewul wala dañ leen a fullawul kenn daal en fait li ñuy xeex amul benn issue dañ leen bàyyi ñuy gën a kaas dafa lu leen naqari lu ñuy xeex wala seen i yenn yu ñuy laaj. dañuy xeex en groupe maanaam lu leen naqari ci seen liggéey. mooy mooy yenn yëf yi ñuy laaj. waaw mooy lu mel ni jëmm ji fi jógee léegi. ci hmm. Dakar Dem Dikk. bari nañu fépp la ku yilif Dakar Dem Dikk. un certain Sylla. ku yilif Sylla. ministre tutelle bi Mansour Faye. ku yilif Mansour Faye. le président de la République. le problème revient toujours à la tête. premier ministre président la République. non problème bi toujours. fa lay mujj day rebondir ci bopp bi borom réew mi. Hmm. ndax bu ñu woon tey lii du fi am lii du am. ci saa si lay saafara. non mais bien sûr. daam il faut ñu oser wax ko. pourquoi moom ñu koy jox foot bi chaque jour lu waral ministre lu waral directeur. xam ñu mu jox c'est là où se pose le problème. mooy dañoo jëlul ñi ñu war a jël. te bonne personne à la place qu'il faut effectivement. daam fi ñu la teg boo ko maîtriser wul woon fi mu ne nii daanaka waa waa Njaañeen bu suba duma xëy laa la wax si yaakaar fiy toog Amina soxna su baax si toog nii cadreur yeeg caméraman yi kenn ku ci ne boo wàccoon sa liggéey ni nga ko war a defee defee woo ko parce que mënuñu fi investir xaalis bu weex tàll pour liggéey pour jëriñ askan wi pour jox askan wi actualité information divertir leen ba pare fi mu ngeen toog fii ci plateau bi di plané bu subaa ñu leen hmm. di suuf. man sax xanaa soo waroon naa demander si stage. <laughs> alors mais léegi hmm. mais dama ni son excellence tey jii buntu palais bi li tax doo fa duraate sa oto sañu ma ko wala daal république hmm. jàddal tournel droite sa oto xalaatuma ko moom di wax ak yow de gendarme yi ñoo la fay fekk wala boo moytul benn citoyen sax moo lay romb ne la grand jógal fii nga toog de bu la fi gendarme yi fekkee wala garde rouge yi hmm. kon hiérarchie bi mu def ci biir këram hmm. bu ko defoon ci biir ministère yi def ko ci biir direct société yi sa waay kon réew mi am jàmm dafa am limite daal nga gis non Pa Assane wax na ko sànq nga waxaat ko làkk doom dóor doom daam sa doom même boo wàccee ci yoon ku ko dóor sa xol yëngu. dëgg la mais yamaleel sa doom ak doomu keneen. buñ dóoree sa doom doo mer. dëgg la mais boo jëlee doom bëgg ko moom fi ne kenn du ko laal. Mm. di xool ñuy dóor doomu jàmbur. problème bi du fi mos a saafara dalal ñu mel ni yow day solo lool ci plateau yi. ndaxte seen i xam-xam day day day junju. junju mooy wax dëgg yàlla da ngay chercher un problème yéen a ngi ñëw étaler ko ci quelques secondes et tu as parfaitement raison. d'habitude limite bi day yem ci on on prône l'hiérarchie des fois mooy bala muy génn moom ah day netti. Eh, mu yam travailleurs yi chaque jour dañuy jooy. bu ñu demee inspection du travail. njiitu inspection du travail dañuy indi sans dossier de problème tegal ko ko fa. Hmm. yow directeur société bi yow nga jaar ci kaw woo ko téléphone ngeen coordonné li ngeen di coordonné sa problème jël nañ jël nañ dossier bi def nañ ko ci panier bi. Hmm? il ba yaa ma ko gën a xam. li ma lay wax yow yaa ma gën a xam. ak ku ñu boole. non man def naa 12 ans ci société. Hmm. médiatique. waaw musuma bi ma njëkkee dem taxaw porter plainte xam nga lu ñu ma wax. demal toog kii dafa bëri pexe. ma ne ah kon yéen. plainte daa bëri pexe fàtte ngeen yàlla. moom dafa bëri pexe waaye bëri pexe jub moo ko gën a wóor. wallaay wax nga dëgg. te yàlla ci ñu jub la ci dëggal lay àndal. wallaay ndeysaan Adja su rapidement. Ah, li mu wax rek dama koy appuyer parce que daam léegi moom Sénégal boo xoolee keroog rek loolu laa doon wax ñu ñuy bëgg sonal ay dossier ak Adji Sarr tribunal Adji ak euh, Sonko bu ñu waree wuy ji yow déjà boo amee loo fa war a régler doo jot say këyit euh, gis nañ benn benn vidéo fan yee bu ñu publier woon ci benn village xale bu ñu waree jàngi dañuy nekk ci lag bi lu tolloog 15 kilomètres ñu war a dem foofu jàngi boo xoolee ci côté santé côté éducation waaw boo xoolee ci côté santé côté éducation lépp dafa taxaw. Mm. parce que ñoom euh, bu seen doom yi waree jàngi dañ leen di yóbbu Europe ñu dem jàngi fa bu ñu feebaree aussi dañ leen di. génne doomu baadala moom di am ay problème pour ñu pour ñu nag daam ñun ñoo war a xoolaat bopp. am suñu fulla ak ak suñu fayda ku nekk gérer jéem a gérer rek li nga xamante ni moo di sa liggéey parce que politiciens yi moom ku nekk rek sa bopp nga fi nekk. chaque jour rek bu ñu ñëwee di la bëgg ray wax donc ñun citoyens yi ñoo war a xoolaat suñu taxawaay. suggestion ngi noonu on lui a donné la parole pour demander une question moom mu joxe suggestion xale bu sol yàpp mag a ngi nii 9h47 <laughs> Samuel ñu bàyyi la nga jël café et puis merci beaucoup jërëjëf waa technique ñi ci kaw ñoom bii beeg Ousmane ñu ngi lay remercier ci café gu bari gi ñu indi si suba si euh, gën nañu naan café Touba lool nas topp café nasaraan si rek jërëjëf. aja tey culture séeréer ngay waxtaanee. d' accord comme ni nga ko gisee rek si éléments yi di fàttali rek ñi nga xam ne ñoo di séeréer yi bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo di troisième ethnie fii ci diwaanu Sénégal bu weesoo ñi nga xam ne ñoo di olof yi. Mhm. ci ab recensement bu ñu defoon en 2007 ñu gis ni yooyu les séeréer daal nañ toll si 1,8 million. Mhm. ci li nga xam ne mooy habitation habitant yu Sénégal. Mhm. amaana sax boobaak léegi li nga xam ne moo di euh, yooyu les chiffres war na yokk. ko bu baax a baax euh, ci noonu rek daam li ngeen gis euh, mu di préparation li nga xam ne moo di làmb ci fàttali rek ñi nga xam ne ñoo di séeréer yi seen ay cérémonie bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy wax ndut mm-hmm. ndut nekk ab célébration boo xamante ni euh, dañ koy defal ñi nga xam ni dañ leen a xarafal mu di góor ni waaye aussi li nga xam ne moo di boobu leen ndut dinañ ko gis ci li nga xam ni moo di des fois ay mariage yi nga xam ni dañ koy def bu weesoo loolu leneen ci cérémonie bokk na ci li nga xam ni moo di mbooy mbooy nekk loo xamante ni pour li nga xam ni moo di bu ñu ñàkkee euh, kenn ci ñoom mu di li nga xam ni moo di funérailles euh, ci noonu aussi am na beneen euh, xew-xew boo xamante ni ñu ngi koy wax xooy xooy tamit nekk benn cérémonie annuelle boo xamante ni pour saltige yi la waaye li ngeen gis ni moom la ñuy wax njoom njoom nekk ñoom ñoom waa nekk loo xamante ni. ñoom. ñoom ñoom. M la M du N la ñoom la njom ñoom. waaw voilà ñoom nekk culture séeréer. mooy làmb. mooy lutte waaw voilà may ma rek ma ñëw. <laughs> non dama lay leeralal parce que fam séeréer bu nekk sama nopp yi di wax. kan la bibi. ah séeréer la. kon waroon naa ko séeréer ba may def élément bibi bëri na di. Ah. maa ngi moom sori ñoo bokk xawoon bureau palmarès. deux deux défaites la am bàyyi bi ah. euh, léegi boobu leen jom tey moom la ñuy waxtaanee mu nekk loo xamante ni séeréer yi bu ñu bayee ba pare dañ koy def euh, ñu gis ni sax li nga xam ne moo di làmb euh, cosaanu séeréer la ñu bëri ñu ngi naan ci li nga xam ne moo di séeréer yi ci lañ jóge donc ci boobu leen jom ñu gis ni la plupart du temps ñi nga xam ne ñoo di ñi nga xam ne ñoo di lutteurs yi voilà ñu war a ñëw bëre mais dafa am ay bàkk yoo xamante ni dañ leen koy def ñu daal daal leen di woyal seen maam daal leen di taggal seen maam ñu ñëw ci digg géew bi kenn ku nekk wane li nga xam ne moom nga mëne donc mu nekk loo xamante ni c'est typiquement séeréer mais sànq maa ngi koy wax ci li nga xam ne moo di seen euh, cérémonie yi nga xam ne moom la ñuy def li nga xam ne moo di ngel daf cee bokk ngel tamit dafa nekk loo xamante ni dañ koy def période bi nga xam ne musique traditionnelle séeréer wax nañoo takk kenn dañ koy def mu nekk loo xamante ni c'est une fête boo xamante ni tamit dañ koy célébrer way fecc ak euh, yu ni mel ñu gis ni nag ci boobu leen jom euh, dañ si gisaale lu mel ni ngel parce que gis nañ ni séeréer li nga xam ni moom la ñuy fecc euh, di ko way dafay daal di feeñaat bu baax a baax ci li nga xam ni moo di njom donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la ni ma koy waxee tout le temps culture dafa nekk loo xamante ni identité nit la mais ñi nga xam ne ñoo di séeréer yi ñoom moom fàttewuñu seen aada fàttewuñu seen cosaan benn yoon tout le temps dañuy dox ci loolu parce que nekk na loo xamante ni euh, dafay wane seen identité mooy tax sax ñu xam fi ñu bokk xanaa rek euh, pour terminer daam di naan rek euh, ñi nga xam ne ñoo presté euh, ci boobule euh, élément bi nga xam ni moom la ñuy jàllale. Hmm. ñi nga jógee ci fi nga xam ni foofu la ñu duppee commune de Gandiaye. Ah, ku ne xam na ni Gandiaye nekk na commune boo xamante ni macha allah séeréer yee fi ëpp. Hmm. donc li ma koy waxee tout le temps rek aada ak cosaan nekk na loo xamante ni lu am solo la. te hmm. moom mooy tax ñu xam fi nga bokk donc war na ñu daal di sàmm bu baax a baax suñu aada ak cosaan. très bien am na solo tey culture moo ñaar ñaareelu rubrique euh, tey ci alxamis gi la fait de référence euh, jeexal ak suñu gan 8 9h53 euh, minutes Samir les dérives dans les média formation léegi amatul moo tax des fois toj-toj day bari ci biir télé yeeg rajo yi presse day préféré léegi yóbbu bu ma ne presse damay wax naan seen peut-être ak le directeur Babacar Diagne yóbbu des influenceurs que mu yóbbu benn naataango confrère wala consoeur ci ay sommet wala congrès yi ñu am soxal presse bu ñu ne aussi lu jëm ci wàllum euh, coupe d'Afrique coupe du monde bi ñu jugee boo xoolee presse seen présence des na fa parce que jëluñu benn accréditation wala yu ni mel ay billets yu ni mel dimbali presse bi pour ñu dem waaye yóbbu nañu ay influenceurs yu bari euh, nan nga gisee ne fi ñu yegg si tey d'habitude neexul ñu bari. Mm-hmm. waa daam encore une fois toujours boo xoolee problème bi ba léegi dootul génn ci débat bi ñu nekkoon. war a teg fi nga war a teg problème yëpp loolu la léegi léegi tey jii ay journalistes wala nekkee ay. maanaam des acteurs médiatiques. war a couvrir des événements ñoom loolu mooy seen liggéey nga ci leen fi dem yóbbu ay lan. taasukat influenceur. influence lan mooy influenceur en fait. une personne influente. kii influente kii influenceur bi kan la influé. kan la population peut-être. population bi ko bi ko bi ko topp moom. il faut bien préciser. Mm-hmm. influenceur bu ci ne am nga sa benn groupe. boo xam ne ñoo lay suivre parce que te ñëw li ngay def ñoom neex na leen. Mm-hmm. mais bul seet li neex nit ki mais seetal li neex askan. Mhm. pour toute une population. yaa ngi wax coupe du monde bi mais coupe du monde bi tey man gisuma defetu Sénégal. ndax la man je vois defetu defetu fédération sénégalaise. Mhm. de football laa gis. comment ça. très bien et merci beaucoup. Mhm. yow nu ñu la mën a jëlee en tant que fédération. yóbbu la nga équipe. sa gouvernement yëkkati tous les moyens nécessaires. jox la ko. à ta disposition nga yóbbu équipe bu war a dem jongante. durée coupe du monde bi un mois la pratiquement. Mm. nga dem hôtel bi nga dëkk bi nga dëkk dëkkal fa say joueurs teg fa say cumikaay yeeg yëpp nga fay ko jusqu'au premier kon yow xalaatoo ni di nga génn premier tour pour dem deuxième tour. Mm-hmm. le premier décembre ñu génne la ci hôtel bi nga dem uti jiwaat beneen hôtel boo dëkk déjà mbër yaa ngi ko wax léegi ci ci ci ci ci ci ci ci culture bi ngeen nekkoon. Mm. changer cumikaay. changer cumikaay. day daan day daan gal day day day daan la mbër. ah bon. Adam tey sama cumikaay fii laa ko stade xoolal mbër problème yi ñu am yëpp mooy ki njëkk a ñëw fu mu dem ba teg ci mikaayam bu homme de tenue yi ñëwee ne ko da ngay changé sa ci mikaay day lànk ba dee suuf parce que fa ko njëkk a teg bu ko yëkkatee jël mën na fa new mm. léegi yow nga yóbbu une nation ñu jox la tous les moyens mm. nga yóbbu jël louer hôtel mm. au lieu que nga koy au moins 15 jours boo xalaatee ni mënoo dem final nga fay 15 jours xalaat yóbbu sa bopp quart de finale. vraiment mais ñun fédération moo ñu njëkk a toog la parce que fédération bi ñu yóbbu gëmul woon ni dinañ génn ci premier tour yi moo tax mu fayoon hôtel am ba le premier décembre. Mm. le premier décembre équipe nationale du Sénégal fédération dañu leen a génne ci biti dañoo dem utiwaat beneen hôtel. Mm-hmm. li tax siiwul li tax jëmul kaw mais li di wax a des influenceurs très influents yoo xam ne gars yi bàyyi wuñu leen xel te duñu leen feeñ duñu feeñ fenn. mooy ñan laa jëlee information. Hmm. Hmm. fan laa jëlee information. c'est important. kon nañu dimbale influenceur. nañu amul sens. ci média ci média on parle. média tey jii bokk na ci waaw. dérive ci am xam lu ko wax. que gone yi jàngatuñu métier. te boo jógee chaque jour problème bi am Sénégal xam mooy lan aw ma liggéey aw ma xëy mais nooy amee liggéey nooy amee xëy te jàngoo métier kii am xëy di am liggéey mooy ki am métier dangay ngay jàngi métier xoolal ñii ni ñu taxawee dafa métti. Mhm. plateau bi deux heures de temps trois heures de temps ñu taxaw ko. di suivre kenn ku ci ne sa caméra bi nga yor yaa ngi koy gérer. ñu ngi tarbi liggéey. ki ne ki nekk ci ci ci ci ci régime ba man. du bàyyi dara. gis nga ko muy daw di génn di dugg. Mhm. parce que parce que gis nga métier. daam ku ko amul doo réussir ci adduna mhm. bu dul boo paree ci métier xamal leen mooy rek mooy métier bi ngay jël na doon passion ci yow. bëgg d'abord. parce que bëgg boo ko jiitalee xaalis te léegi gone xaalis la ñuy wër. Mhm. mais daam affaire bi da ngay bëgg li ngay def. mais jaa tamit leneen ci mooy li waa ji wax am na ñoo xam ne peut-être dañuy nekk ci liggéey bëgg nañu ko waaye jiitaluñ ci peut-être liggéey ba ca war ak professionnalisme mooy dañuy jiital dañoo war a feeñ on doit exister kese. waa léegi xam nga daam lu ci nekk boo defee sa bopp star ndax sa bopp caméra bii di la wane mooy star. yàlla na ko yàgg te wér. jeex na tàkk. Mhm. waaye bu ma bëggee doon star. fàtte ni caméra bi moo may wone wala micro bi may waxee mooy tax ñi ñi dégg ma war a sol tey ma war a sañse non kon yow doo mës a arrivé ci àdduna. dëgg la j'ai des gosses nag sama kër. Hmm. maa ngi leen di formé man fekk naa rapport boo xam ne rappeur la woon tey def naa ko un cadreur à lui seul dama koy jox matériel mu dem. Hmm. mu dem cadré boppam ba mu rafet toog def émission ba mu jeex mu pare fayee bagage am ñëw bu ñëwee monté rek laa ciy def diffusé te rappeur la woon. Hmm. dolli nga liggéey. dafa mujj defar barab bi sax fi ne bu gisee lu ko ci sax bu gisee lu ko intéressé mu door a dem bind ay texam dem dugal ay son mais mi ngi gagné vie am au moins mu am benn métier bu ne ci moom très bien ba pare xam nga lu garaaw daam nañu gars yi dimbali ci théorie bu bëri bi mm-hmm. il faut faire pratiquer les personnes les gens très bien affaire bi doonatul toog ci école jàng diplôme la diplôme bi boo paree da koy yónni taxawaal këroo kër nga demandé fa euh, stage doo am wax la ak liggéey. <laughs> mais ne ko gars yi dem pratiquer ni ko ñii di defee man lii laa gëm. c'est important Sénégal le président en personne la ñuy man message moom laay waxal parce que man nee naa gannaaw moom il est au-dessus de tout le monde. Mm. ba mu des yàlla. moom fi mu am na forme bu ñu fa duggee moom dañ koy jël teg nee. Mm. malgré mais na jël ay ubbi ay école de formation. multiplier ko multiplier ko. jël nit ñi xale yi ndaw yi ñu leen yóbbu ñu jàngal leen métier. motiver leen. Mm. ba pare gis nga bu ndaw ñëpp jàngee métier ñu motiver leen bu subaa duñ soxla dara Europe wala ñu soxla dara feneen. Mm. mais ndaw ñi amuñu métier. Mm. bu ñu amul métier du ñu mën a am liggéey. bu ñu amul liggéey chômage bi moo fi bëri agression moo fi bëri sàcc moo fi bëri. dama lay xool sax nga yor dara génn fii léegi bala ñoo wàcc escalier yi a xaaral mag ñett daam ci escalier benn kër doon un sa papa gaañu na sa yaay loxoom jotu di ginnaawam nooy def après nooy def. boo amul métier amoo liggéey nooy def après da ngay dem gangse ji. da ngay dem gangse ji te pourtant ñun on est des fils de de la banlieue. daam Pikine laa jógee. Hmm. diggante Pikine Guédiawaye Thiaroye Parcelles Yeumbeul Kër Massar Malika fa laa yeewoo. Hmm. bu ma la rombee lan moo la koy wan ci man xanaa ma wax nga xam ne kii kaw kaw la. mu très bien jërëjëf Samir Seck euh, temps bi gàtt na lool ndaxte waxtaan bi day neex ak moom euh, ñu xam la bu yàgg euh, sàkk woon tey nga jaar si sunu suba sile bëggoon naa waxtu bu gën a yaatu incha allah ci jours yi di ñëw ndaxte certainement ou même sax forcément dañuy soxla sa xam-xam gërëm nañu la bu baax Samir mbégte bi fii la ci ñun parce que nee naa ñëw ci loo xamante ni ñu invité la ci loo xam ne ci nga bokk mbégte la donc fi may fi may daanele rek mm. mooy kenn koo xam ne tey fii bu ñu fi doon ñëw suñu ñëw ci lu bëri ci moom la doon jaar ñu koy ñaanal fa mu tëdd yàlla na koo gënal fi mu jóge muy DJ Mike ah, Mouhamed Gueye Mouhamed Gueye mm. di sama grand frère di sama frère mm. ndax rakam Idrissa Gueye di dañoo bokk lépp mm. bokk dëkkuwaay dëgg la defandoo ci média lu bari macha allah plus particulièrement waaye itam di am ñoo xamante ni ñu ngi leen sant bu baax a baax bala may génn foofu ki nga xam ne ñu ko doon tudd léegi muy Alaaji Sidi Lamine waaw donc moom it ñu ngi koy ñu ngi koy bàyyi xel mm-hmm. parce que tey jii nee naa média Sénégal bu demee ba am taxawaay bu mu fi taxaw mm-hmm. moom ak borom kër gi benn baas faw gën ci xale mm-hmm. man fii mën naa ni RDV gi ci jamonoy benn baas ñi fi njëkk am permis ñëpp suma rakk bu moo leen jox permis donc parce que oto école la yoroon dafa daan ñëw ànd ak moom mais bu ma fee laay taxaw ci biti parce que loolu la seqoon ak ñoom mais man li ma seqoon ak kër gi mooy empreinte yu ñu bàyyi. Mm-hmm. je vais pas dire ci Sénégal mais à grosso modo en Afrique plus beneen bi nag may gërëm bu baax a baax suma jëwriñ Adama Mbaye ngeen dëkk yéen ñaar Adama Mbaye actuellement il est le directeur des études de l'IFOT IFOT bi may ñëw mm. bokk nañ ci ñu maanaam ay kaddu yoo xam ne ñi ngi koy yóbbante ci yow macha allah institut la mm. ci formation la ñuy yëngu jàngal ndaw ñi xam-xam. dinañ seet bu soobee yàlla. te incha bëgg naa waaw ñu def ak ñoom ngeen def ak ñoom lu rëy parce que Adama Mbaye ci la ko ne yéen a dëkkoon parcelle donc voilà y' a pas mal de choses yoo xam ne après li des nag mooy. sant ñiy seetaan ñëpp. jërëjëf kenn ku ci nekk nag lu fi wax lu dëng. Mm. ñu xam ni ni ko. lépp jum na ni ko Pape Assane doon waxee sànq. Ah. nit ku nekk dafa am tolluwaayam. macha allah. jërëjëf Samir Seck du yi am na solo merci beaucoup jërë ngeen jëf 10 heures passé na bu yàgg ñu ngi ci bu baax a baax ça a été un plaisir de vous accompagner au bon matin yéen a ngi woon ci euh, quatrième incursion de la semaine suba la ñu amal sunu matinal bu mujj ci aljuma ji on vous souhaite de rester euh, du même de passer une très bonne journée et de rester en compagnie des programmes euh, de la RDV jërëjëf Siaka merci beaucoup Anta Khady jërëjëf Kekala Ndiou jërë jëf merci beaucoup